ne ko da ngay kàcc da ngay dem Touba sëriñ Mamar maa ne ko tontu booba ne ko da ngay kàcc dañuy dem Touba da ngay kàcc dem Touba